yaa ngi ci biir tariqatu tijaniya ngir borom téere bi nga xam ne dafa def gëstum ba xam la ne njiiti tariqatu tijaniya boroomi xam-xam yi war a def ifta dafa am wuute gu am ci seeni biir mu mel ni dégguñu seeni tariqa ndax li ñuy tuddee adratul jumaa jël benn baat lu deme ni allah allah dafa am ñoo xam ne boroomi xam-xam lañ ci biir tarixa bi wax nañu ne benn pàcc bi bidaa ci sharia waaye beneen pàcc bi itam bidaa la ci tarixa bi ndax Cheikh na Ahmad Tijaani Sharif moom mosul def lu mel noonu mu mel ni kon ñàkkaa déggoo am na ci boroomi xam-xam yi nekk ci biir tariqatu Tijaaniya kon daggitu paas yooyu du ñàkk mukk ñu woo kenn ci boroomi xam-xami tariqa bi ñu tànnoon nag kii nga xam ne moo di cheikh alaaji Mouhammad Sakho fële al imam ca New York ko mu ñëw ci ak ñun wax ñu ci daggiti paas yi fan moo di cosaanam ku ko bind ak lan moo tax mu bind ko ak boroomi xam-xami euh, li nga xam ne moo di tariqatu tijaan yi dëppoo nañ ci mbir wala dëppooñ ci mbir ak daggiti paas yi fan la jógee kon xam naa incha allahu taala dañuy bàyyi al imam cheikh mouhamad Sakho mu ñëwal ñu ci daggiti paas yi cheikh Moussa Cissé bokkoon démb te doon ci interpellé ñi nga xam ne ñooy dund tariqatu tijaan yi kon tafadal al ustaz bismillahi alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sayyidina wa xabibina muhammadin ibni abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim wa radiyallahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim sayyidi wa xabibi xaaja aba bakr radiyallahu taala ankum wa an jamici ahlil ilmi wa taallumi min saadati hadihi almajmuati almubarakati majmuati wa qul jaa alxaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kaana zahuqa sëriñ bi ñuy la nuyu di nuyu yi ci groupe bi yëpp gurubu waxal ne dëgg dikk na yal na yàlla boole ñu ci woy dëggu ak woy dikkee dëgg wa zahaqa al baatilu yal nañ yàlla musal ci neen ak ñooñ neen bi barakati al quraan al karim wa xurmati al xabibi sallallahu alayhi wa sallama wa jaahi al xatmi al katmi sayidi ahmad al tijani radiallahu taala anhu waaw mel na sëriñ Babacar li woowe xamal ma ni dafa am fi dugal ay xat mbokk mu sant Siise mu ne xat ya nag daf cay wane ne e, tudd yàlla bil ismil mufradi non seulement bidaa la ci diine xasaba zaamihi waaye bidaa la ci tariqa bi mu mel ni ki toxal kayit yi dikkee leen ci groupe bi moo sant Cissé waaye bi ma xoolee kayit yi sànq gis naa ne ko bind euh, Mouhamed Alhaadi Diallo lañ wax ne la tudd loolu moo nekk ca signature ba ca suuf waaye boo xoolee lim bind daanaka euh, dafa dajale yoo xam ne ñu ngi tasaaroo ci internet eh, indi ko def ko waxam mu ne nag eh, mi ngi ko tuddee albattaarul masmuum ala man ictada ala cheikh omar assal min alxusum xam naa su jàngoon qasida ba mu bindoon ci omar sall deux mille seize defe na ba mu kàccaleeg Mawlana Cheikh Tidiane kàcc yu metti ya dana xam ni kuy wax wax yu euh, nekk di dëgg yu mel nii yelloowu turu cheikhu xanaa mu jublu ci cheikhu najat muy magam najat mu dikkaloon Quraysh ba ñuy fexeel yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba mu melowee melow mag melow sëriñ xam naa loolu la mën a jublu ci Omar Sall waaye daraay masixatu du ci xam-xam du ci adab gu nekk ci moom ñu fas yéene nag dikk ak yéen incha allahu eh, tontu ci dama waxoon sax sëriñ Babacar ne ko ki ko indi wax ko ne ko nañ ci waxtaan man ak moom mu ne waaye woo na ko daal waaye kooku bëggu ca eh, waxtaan ma ne ko wax ko ne ko du débat waxtaan la rek waaye dafa mel ni nanguwul bu nangu woon nag ci lay lay gën a euh, baax ñun sax euh, budul woon ak sëriñ Babacar duñ dugg ndax dafay WhatsApp yi léeg-léeg dafay am ñàkkante ak bàkkuwante bàkk ak euh, xasante ak yëkkatiku yëkkatiku lu boo xam ne daf ci feeñ ba boo moytuwul yàlla ji nga ci doon wut nga ñàkk ko ci looloo tax sëñ Babacar mi yàgg na ma sàkku ma naxante ba daw waaye lii nag aw ma ci budd aw ci pexe kon nag ci gàttal rek ñu ñëw ci incha allahu taala point bu njëkk bi moo di wax ji wax ne boroom xam-xam yi seen position ci zikr al mooy ngay tudd yàlla naan allah allah rek dañuy wax ni amul cosaan xam naa ñàkk amaana ilmiya moo tax mu waxe noonu ndax ndax mën nañoo tudd yàlla bil ismil mufrad masala fiqhiya la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee am ak wuute li jaadu mooy mu wax ne ñii lii lañ wax ñële lële lañ wax waaye moom dafa indi rek lenn ci euh, boroomi xam-xam seeni position te nag bu ñu delloo ci position yu wuute yi danañ xam ne al muhaqiquuna min ahli al ilm position yi ñu indi ñoo gën a wér te ñoo gën a dëppook alquran ñoo gën a dëppook njàngaleen yonantu sallallahu alayhi wa sallam position ba mooy tudd yàlla di bil ismil mufradi allah allah ak lu yu mel noonu mën naa nekk te cosaan la mi ngi ci alquran cosaan la mi ngi ci sunna cosaan la mi ngi ci jëfi asahabatul kiram alayhi salaam alayhim ridwanullahi taala laa bëgg wax cosaan la ci alquran sama borom tabaraka wa taala dafa wax ne wadkur isma rabbika bukratan wa asilan waxaat ne wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtilan tuddal sa turu borom tuddal sa turu borom ma bëggoon a xam nag turu borom bi moom ban la su fekkee allah du turu borom bi dañ ma wax allah turu kan la bi yàlla ba muy wax ci alquran uzkurullaha zikran kathiran waxul ne na ngeen bi kaza ba muy wax wala zikrullahi akbaru waxul ne wala zikrullahi bi kaza tënkut uzkuru tudd leen allah la wax zikran kathiran wala zikrulaay tudd allah akbar moo gën a màgg yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ci saxiix muslim mu ne bés penc du taxaw xatta laa yuqaala fi l ardi allah allah am na ci beneen lafz ci saxiix muslim laa taqumu saacatu ala allah allah bés penci du taxaw feeg demuñ ba waxatuñu allah allah ci kaw suuf bés du taxaw ci benn jaam xam ne mi wax allah allah xam nga dalil gënte màgg loolu di alquran wax na ne qulillah summa darhum fi xawdihim yalaabun ah léegi yaram ku ne yàlla fa doon tontu tudd na ko sos wax mën na nekk tontu mën na nekk wax ju bees ndax ca biir aay ja jiitu qulillah tonta nga fa yàlla it waxaat qul udu llaha qul udu llaha wala qul udu llaha yëpp baax na aw udu rrahman ayyama tad'u fa lahu l-asmaa'u l-husna kon boo ne allah allah allah allah mel na ni yaa ngi naan yaa allah yaa allah boo ne rahman mel na ni yaa ngi naan yaa rahman ndax xadaf xarfu nida ci luxa dafa dagan ci anam yu bare bare bare dafa dagan ci anam yu bare bare bare te borom eh, ibnu malik rahmatullahi alayhi dafa ne waxadu ma yuclamu jaizun kama taqulu zaydun bacda man cindakuma xadaf luñ xam dagan na ni ngay waxee ne Zayd gannaaw buñ la laajee ku nekk fa yéen boo jàngee al adab al mufrad ala man ankara ci ay tegtal loo xam ne doo ko xaw mën takk eh, bokk na ci li muy yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee xata laa yuqaal allah allah mu ne bu noon xata laa fi l allah mën naa am muy tegtale ne mën nañ ko baamtu mën am muy tegtale ne dégg nga kuy weetal yàlla rek la bëgg a wax waaye ko répété rek lañ xam ne répétition la namm yaaram nag dafay wax ni naka lay dara di wéree ci xel yi su bëccëg soxla tegtal yi ma wax leen mbokk yi ay eh, tegtal la yoo xam ne yu ñuy déggee la ci laay yiñ wax ak ci xadis yiñ tudd dégg nga bori wax borom xam-xam yu bari ci te leer lool waaye ma dikk ak yéen ci ay tegtal yoo xam ne ay jëf la yu am ci jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi xam ngeen ne sunna di ko asaadatul ulama jàngale mooy lu mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax baalum def alayhi salaatu wassalaam baa luus wax baa defees ko cig xamam alayhi salaatu wasalaam te dingatu ko moom la yàlla yebal ci jaam mi ngir mu leeralal leen lim bëgg su gisee luus warta def mbaa waree su ko wax bu ko seetaanee mel ni gàttañ lu dafay am moo tax seetaan rek lu yàlla d'accord ci mu am la mu dox la buñ jàngee ci ahadisu sayidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne bës penc du taxaw li feeg am na ñuy wax allah allah ñu jàng ci alquran mu ne tuddal allah am lenn ñu dégg leneen lu dul zikar ko la jublu bu ñu seetee jëfi saxaaba yi ci jamono yonantu sallallahu alayhi wa sallam danañu wax ndax loolu la wala du loolu ci siiratu ibni hisham nee na saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa yowma badr ahad ahad moo doon seen chiar nee na saxaaba yonantu yowma badr ahad ahad moo doon seen chiar moo doon seen bakk jàng nañ ci musannaf abdurazaq ak shuab shuab albayhaqi shuab aliman lilbayhaqi ak taarix bu ibnu asakir ibnu asakir rahmatullah alayh ak listiaab bu ibnu Abdul Bar al-Maliki rahmatullahi al-jami ñu jëlee ci e, Maamar mu jëlee ci Ata mu ne bés dama nekk ci Saïd ibn al-Musayyib ñu tudd Seydina Bilal radiyallahu anhu mu ne Bilal ku nay la woon ci diineem maanaam nanguloon a bàyyi dara ci diineem mu dem mooy dañ ko doon mbugal ci yàlla di ko mbugal ci diineem su ko mushrikoon yi bëggee jege loolu lañ gëm rek mu daal di wax allah allah loolu la doon zikkar nee na allah allah ni nga xamee ne wér na ne moom Bilaal Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax na ko ci jeneen xadis xadis yaa ngi ci saxix ci ibne xiban saxixam ci mustadrak alxaakim ci musnadu ahmad sunanu ibne majat ak yeneen i téere nee na yéeféer yi dañ daa wër ak bilaal ci xóori makka yi di ko mbugal waaye lu mu daan zikar ahad ahad ahad ahad loolu daan répété xadi xaakim nee na xadis ju wér la ak ñeneen xaakim te xam ngeen ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàgg Bilaal ñu koy mbugal ba ni muy proposé Seydina Aboubacar pour mu goreel ko yonentu sallallahu alayhi wa su fekkee ci jamonoom ñu ngi zikar loolu ca Makka te dingatu ko ca Badar ñu koy wax te dingatu ko waa kan ci ñun moo mën a taxaw ne lii de kenn ci salafu saalix mosu koo def alquran digalewu ko sunna digalewu ko loolu aw sos aw dur la li am mooy alquran wax na ko sunna wax na ko te saxaaba yi nga xam ne ñoo dundoon ak yonantu firi nañ ko ci seen jëf pàcc bi ci gàttal mbokk yi mooy li jëm ci li mu wax ne amul benn dalil ci ne wax na mën nañoo wax allah allah allah allah alquran saxal na ne mën nañ koo wax sunna saxal na ne mën nañ koo wax amalu saxaabati asxaabi rasulillahi ci dundu sayidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saxal na ne lii lu cosaanu la wallahu taala alam wax yi mu wax ni baatu allah allah bidaa la ci tariqa cheikh sayid ahmed tijaani radiallahu anhu cheikh tijaan xamu ko mosu koo def gannaawam lañ ko sos loolu mooy sos wi gën a rëy ak nar wi gën a rëy wu mu naral waa tariqa bi wum naral seeni kilifa wum sosal Mawlana Cheikh Tijaani radiallahu taala anhu buñ jàngee jawahirul maani wa bulughul amani ci xaaj bu njëkk ba bu dee bu Seydi Mouhamed Raadi gënnoon def page deux cent cinq bi nga ne Seydi Cheikh Tijaani Ali Cissé moo def ak taxqiq ba page cent soixante dix neuf muy tabax ba mu def deux mille dix ne yàlla boole leen sàmm fi lxarazi mi ngi ciy wax ne wa min awraadihi alazimati alqadr yaqutatu alxaqaiq fi ltaarifi bi sayidi alxalaiq wa hiya allati awaluha allah allah allah bokk na ci awraad yu Mawlana Cheikh Tidiane yu mag ji daraja mooy wirde wii di yaqutatul xaqaiq fi taarifi bi sayid alxalaiq sallallahu alayhi wa sallam mu ne wahiya allati awaluha mooy wirde wi nga xam ne njëlbeenam mooy allah allah allah baamtu allah baamtuwaat ko boo demee ca xaaju ñaareel ba fi muy firee awraadu cheikh fi muy firee awraadam yi moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu borom jawaahir na ko fa euh, ci xaaju ñaareel bi bu dee ci tabaxu sidi gën noonu la daa fekk ci huit cent soixante douze page huit cent soixante douze euh, eight seven two maanaam juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu di ci leeral euh, dégg nga réyaayu Allah ñu di ko zikkar yàlla di ko répété ñu koy ñu yàlla di ko répété ñu koy zikkar yàlla di ko répété kon nag mbokk yi tegtal bi njëkk ci nari borom kayit yi ne Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu mosta allah allah des ko sos gannaawam wirde wu màgg wi nga xam ne mu ngi ci téere tariqa bi Cheikh na Tijaani non seulement daa ko wirde mu nekk ci jawaahir bi nga xam ne ci jamonoom lañ ko taalif waaye Cheikh Tidiane ci boppam sharxa wirde bi te sharxa bi nekk ci jawaahir ba pare firil ñu sax buñ ne allah allah ci zikar lan lay firi ndax allah allah ci zikar sharia nangu na ko luga nangu na ko bu dee ci sharia yàlla moo wax ne wax leen allah te bam ko waxee waxul ne da ngeen war a wax jumla ju jëriñ wala waru leen ko wax te jumla joojit ci luxa dafay jëriñ ndax boo ne allah allah mu ngi mel ni yaa ngi wax sa bopp naan alayka billah alayka billah ni mu ñëwee ci yàqutatul xaqaayiq boo ne allah allah bi mën naa nekk xabaru mubtada muy xadaf mel ni allah yaa ngi ci jublu sama borom mooy yàlla wala mu nekk mubtada joo xam ne xabar ji dañ ko xadaf mooy ba nga ne allah allahu di mubtada rabbi di sama euh, di xabar ji ñu xadaf ko ni nga ko waxee woon sànq ci euh, góor gi ibnu malik rahmatullah alayhi ne waxadu maa yualamu jaizun kama taqulu zaydun baada man indakuma wala allah allah mën naa firi maa ngi jéggalu yàlla wala maa ngi muslu ci maa ngi sukkandikoo yàlla léeg-léeg nga gis xutbakat bi sax daal ne allah allah ibadallah fekk lu mu ci jublu mooy ragal leen yàlla ragal leen yàlla bàyyi leen xel bàyyi leen bàyyi leen xel yàlla bàyyi leen xel yàlla jaamu yàlla yàlla moo ne woo leen allah wala ngeen woo arrahman te ci ni daaw mën nga indi yaa ko mën nga ko bañ a indi ni nga xamee ne eh, jàng nañ ko ci kutubu al lugha eh, ñun ñëpp wa kutubul balaghati wa ma ila min kutub ah, ah. ñaareelu tegtal bi saxal ne allah allah non seulement cosaan la ci awraadu Cheikh yu faccantikoo waaye ni laa ilaha illa allah nekkee cosaan ci zikr ci àjjuma noonu la ko allah allah nekkee ci jamonoy Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu jawaahirul maani yi nga xam ne mooy ndeyu téere tariqa bi yëpp bi muy indi awraadu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu gannaaw bu mu tuddee alwirdu laazimu bi ñuy def subaak ngoon tudd wirdul wazifati bi ñuy def lum tuuti tuuti benn yoon ci bés bi ñetteelu wirdu mooy ñetteelu wirdu bi mu indi mooy wirdu zikru alhaylalati baada asri aljumuati mu ko tudd ci page deux cent cinquante cinq ci moolu Sidi Mouhamed Raadi Gannoon xafidahullah ba muy tudd zikar si àjjuma wala xadrata xadra xadra juma juma ni ko suñu mbokk wala fii di waxee te xadra la tamit ndax teewaayu mbooloo Cheikh Tijaani radiallahu anhu dafa ne na ko def nañ ko def ala qaidati tariqati alxalwatiya ci qaida tariqa alxalwatiya maanaam ñi ko waa tariqa alxalwatiya di defee dana wax feneen ne su fekkee ne ka koy def mëneewu ko defee noonu nañu ko defee ni nga xamee ne noonu ay aadaay dëkk booba ci zikar yàlla ba timis jot léegi nag bu ñu bëggee xam nan la ko Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daan defee bu ñu demee ci ar-risala ash-shafiya ar-risalatu ash-shafiyatu euh, fi fiqh tariqati al-ahmadiyyati at-tijaniyya bu Mawlana Idris ibn Muhammad ibn al-Abid al-Iraqi rahmatullahi alayhi ca jukkib ñaareel ba page deux cent quarante cinq ci taxqiq ak euh, euh, moolu bi nga xam ne xalifa bu baax ba ca Marrakech mu tudd sëñ Mouhamadul Kabir mu wol na ko waaw ñaari volume ma ci amee yëpp moo ma ko may na ko yàlla wut daf cay wax ni ci jamono Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu niñ daan defee zikkar si ajuma mooy ni ko xalwati daa defee moo di baatu dàq bi ak saxal di wax laa ilaha illa junni ba lu ko jege mu ne buñ demee nag ba dagg ci lépp lu yàlla nga xam ne nekkatuñ fa yàlla rek fa nekk tabaraka wa taala yàlla def na ak tajalli wal baatu taxallada la jëfandikoo béel na moom yàlla ci xol yi dégg nga bakkan yi ak jëmm yi maanaam nekkatuñu fa waaw talaasha fi nufuusihim kullu ma siwallah lépp lu dul yàlla rek seey na nekkatul si ñoom dara defatul lu dul yàlla mu ne buñ àggee foofu nag ci la ñuy wax al ismul boole ko xay di wax buñ ko waxee ay yoon daal di nag lu ci lismul mufrad di wax allah allah allah allah nee na nii lañ daan wirdewee ci jamonoy Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu wirdaay si kër si àjjuma nii lañ ko daan defee gannaaw dundu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu moo lu tax nag ñu dem ba tey li ëpp ci ñiy wérde li ëpp ci zawaaya yi laa ilaha rek la ñuy wax duñ yegg ca allah allah ba donte am na ñu koy def ba léegi am na histoire ñu indi leen ko yu gis ne kon Mawlana al Iraqi yu rahmatullah alayhi xamal nañu ne zikar si ajuma wax ca laa ilaha illallah ak wax allah allah cosaanu la luñ daa def ci jamono Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ak gannaawam dana tudd nag ci page deux cent quarante quatre ne dem na ba am ñu cay boole yu ca bokkut yoo xam ne dafa xaw a niru am po mu ne ci la lenn ci ay borom xam-xam waxee ne nañuy yem rekk ci laa ilaha illa allah gi ngir ne dem nañ ba rafet mënuñoo rafetal yoon wu njëkk wa ña ngi boole lu ca bokkul ndax tariqa ahlul xalwati xam nga may nañ la nga taxaw di wax allah allah waaye yaanu gaag ya ca bokkul ak yooya moo tax ku mel ni cheikh ben Amar nga xam ne sët la ci sëti Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu dégg nga bokkoon ci ñu daa digle nañ yem ci benn béréb comme ñaar yëpp fa baax nee na lii nag mooy liñ mujj xam di di ko jëfee depuis mille trois cent trente sept mbokk yi mooy mille neuf cent dix huit te Cheikh na Tidiane mi fi jógee mille huit cent quinze kon yonent kon Cheikh li mu fi nekk ba ni fi jógee ak gannaawam yëpp ñu ngi zikar laa ilaha illa allah ñu ngi zikar allah allah boo demee ci rimaax bu Mawlana Cheikh Hadj Omar it dana la la laa ilaha illa allah ah, kon nag mbokk mi li wax eh, haba mansour la tegut ko ci xam-xam waaye tegut ko ci yar tegut ko ci teggin ñu ngi jéggalu ndem guddal nañu xam naa tisbaar a jot fi ñu taxaw fii su fekkee ne am na yenn mulaaxadaat wala yenn taaliqaat wala laaj incha allah buñ jullee ba pare ñu dellu si ci assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu